libération en, en, en, en cascade. Il euh, y a Aluntune qui parle, il euh, de, de, de, de, dialogue, ya y a Atepa qui, qui, parle, on parle de discussion entre Macky Sall et, et Ousmane Sonko. Est-ce que dafa am gaay lu ñu déggoo e que ñu demander au président de la République de donner des gages moo tax démb l'image était même était n'était même pas jolie c'est-à-dire dafa mel ni dañoo tijji les les les les portes des des prisons nit ñi di affleurer Eh, lan ngeen ñu mën a wax ci loolu. xam nga sànq maa ngi naan la l'importance de nommer les choses ñu bi ñuy wax sànq concertation ak consultation quand concerte et quand on consulte juste quelqu'un mal nommer les choses c'est ajouter à la misère du monde parce que dégg naa ay termes comme li nga doon wax médiation Ousmane Sonko day dialogue wala day médiation ñu tuddee ko. ah yow waxoo ko mais damay wax rek li li nga xam ne moo ci nekk. Euh, dégg nga honorable aussi euh, je pense euh, ça commence di être dit que libération yi forcément c'est le résultat nit ñi mënoo leen tere ñu am je dis pas mauvais esprit mais un commentaire libre jàpp ni c'est le résultat de quelque négociation wala de marchandage. boo xamante ni euh, Ousmane Sonko peut-être da ko def ak Macky Sall xam nga euh, parfois nit ñi dañuy bëgg Karim Wade gis nga bi ñu ne euh, dafa jékki-jékki rek se fendre d'un tweet en tout cas c'est sa page officielle je suis très content de la libération prochaine de Ousmane Sonko qui accepte les négociations par ñi ñooy. mais parce que Alioune li mu annoncé. li mu annoncé libération la wax Ousmane Sonko sera libéré dans mais Alioune tegu ci ni musul wax sax. après Ousmane Sonko day dem dialogue Alioune Tine bi mu koy wax il n'avait même pas vu Ousmane Sonko pour vous dire parfois euh, l'empressement non il a toujours voulu que Ousmane Sonko et Macky Sall se parlent pour wow. la stabilité de ce pays loolu amul problème mais quand il annonçait que ni Ousmane Sonko day génn on était dans la loi d'amnistie la moo tax ñu xëy bàyyi loi d'amnistie dama leen bëgg wax ni Euh, je reviendrai peut-être après sur est-ce que bu Diomaye falo day créer ay propos kooku moom je panse que c'est hors de propos ça n'a aucun lien jarul ay développement lay conjecture sax ay pronostic que y a un candidat de substitution c'est pas un candidat en tant que tel de substitution c'est juste que doobaay vide am li leen daloon dal ko ñëpp mooy suñ candidat bu demul et on laisse le boulevard à Macky on a dit non non et puis les je pense que yooyu cuisine interne parti la il faut pas préjuger qu'il y aura des problèmes parce que l'un sera élu il est candidat de suite non non du tout parce que il a été désigné donc loolu sax du débat pour qu'il y ait médiation mais que deviendrait Ousmane Sonko si Bassirou Diomaye est élu non loolu Ousmane Sonko est la première personnalité qui incarne ce projet là xoolal qu'est-ce qu'il va devenir <laughs> boo xoolee relation Ablaye Wade Macky Sall fi ñu mujj gis nga loolu du problème mu parce que kuñ élire président yow la ñu élire président par la suite amul kenn ci dëkk bi koo xam ne mën na la def de l'ombre te neexu la donc faut foofu même pas. te neexu la loolu da koy jël teg ko. mbaa mu exilé ko non non defal ndànk dama mbaa mu isolé ko xam nga lan mooy créer une tempête dans un verre mooy une situation qui ne s'est même pas encore produite et on veut conjecturer sur les potentielles et éventuelles relations conflictuelles qui ex pourraient exister non on va fermer sa li ñuy am këtt ni yoon xam nañ ko donc on va pas perdre notre temps là-dessus maintenant Ousmane Sonko bu négocier ak Macky Sall lan la ko jox en échange Ousmane Sonko a envoyé lu leer à un message très clair à ses députés opposez-vous la loi de report physiquement lañ taxaw assemblée jusqu'à ce que une légion des forces spéciales ñëw génne leen non dama lay wax rek. il a demandé soutenu le recours contre cette loi et sans attendre la décision du conseil il va aller négocier avec Macky Sall quel est le contenu tey jii bu doon dafa engagé wu dans des négociations fu mu jëm quel est le sens bi ñu koy wax Macky Sall moo envoyé un émissaire aller voir Ousmane Sonko c'est ce que l'émissaire a dit. muy Atepa le président Macky Sall m'a contacté m'a contacté m'a demande d'aller voir Ousmane Sonko parce qu'il y avait un climat de tension politique suite à son décret illégal mu am ay tension ñu jàpp ni moo tax man je me suis toujours opposé à que le problème de départ qui était un problème de violation de la constitution devienne un problème de libération de Ousmane Sonko ñu ne leen glissement boobu du am maintenant si un président vient vous dire situation de crispation politique je veux engager un dégel mu jàpp ni dafa war a génne les militants ñu ne ko hors de question nga dugg ci amnistie nous refusons catégoriquement une loi d'amnistie qui signifierait de l'impunité vous n'en voulez pour les victimes lu ñu wax dafa leer ni ko loi bi dañuy xool loo ci parce que loi d'amnistie dafa am nu ñu koy bindee duñ ko nangu ñun duñ jël pour argent comptant finalement mu xam ni ñun ñii victimes yi léegi ñu nekk ci prison ni ñëpp ils sont contre cette loi d'amnistie Et, et des gens de sa majorité aussi. et des gens de ba tey quel que soit alpha tey jii boo nee Ousmane Sonko da doon négocier ak Macky wala nga bëgg ko koo accuser parce que ñu bëri ñun bi ñii bi ñuy dem seen dialogue on a dit des choses simples joxuñu leen mandat en tout cas ñun jàpp nañ ni yeewi askan wi jox leen mandat mais dem nañ seen dialogue et puis dem nañ ils ont le mais de là à vouloir en déduire que ku nekk day dialoguer ak Macky Sall. lan la Ousmane Sonko teg en contrepartie parce que pour qu'il y dialogue politique yéen da ngeen demoon pour être réhabilité Ousmane Sonko lan la teg sur la table sa libération la libération des députés le report de l'élection lan la teg sur la table ban émissaire ngeen mës a dégg parce que pour qu'il y médiation yooyu damay jël ci kii proposition kee jox contre proposition da ngeen cee dégg lool wax ji bari na nag Alioune Tine wax ne dañ leen di libéré yi se passe si boobu gisagul Ousmane Sonko il l'a pas vu donc damay tëj fenêtre boobu ni duñu leen may que le problème de la l'inconstitutionnalité de votre démarche l'illégalité jusqu'à être censuré par le Conseil constitutionnel que vous transformiez ce problème la wala ñenn bëgg ko transformer en problème d'Ousmane Sonko Ousmane Sonko dialogewul leen. dialogewul dans le sens bu ñuy woowee dialogue parce que ñoom yàpp nañ koo yónni émissaire. nga vous, vous n'irez pas euh, à, à un damay damay préciser. parce que les éléments les gens des hommes politiquement impactants. tey bu fekkee da nga ne waxtaanu leen wala amu leen dara en contrepartie quel est l'intérêt aujourd'hui de Macky Sall d'avoir fait cette posture là qui massacre son candidat. e de libérer des détenus qui vont venir renforcer un pôle qui s'est déjà renforcé par l'afflux de candidats indépendants. Qu'est-ce qu'on a donc en fait tu es de donner le plat le, la, la, sur, un plateau d'argent un candidat qui aujourd'hui est encore en prison et qui est le candidat de substitution de notre candidat qui est en prison. defal ndànk Ousmane Sonko nee naa la mënta wax dem leen attaquer ma loi xaarul décision conseil bi loolu stratégiquement c'est pas c'est pas c'est kan mooy def tu ne connais pas la décision du conseil tu vas entrer en négociation avec lan pour le report de l'élection est-ce que mës nga dégg Ousmane Sonko wala Pastef ñu génn ni ils soutiennent le report ils l'ont combattu commission d'enquête bi ñun dañ ko voté biñ koy def commission d'enquête bi au départ beaucoup de partis se sont laissés tromper. mais libération bi qu'est-ce qui se passe. il y a un président de la République qui est fragile extrêmement fragile. par la communauté internationale qui utilise des termes on ne peut plus directs contre un président en exercice. Les Américains ont été très clairs. Blinken a été très clair. ni ko respecter les droits détenu politique yi tout revient sur moom comme un boomerang il a dit je veux un dégel ñëpp jàpp ni le meilleur la meilleure façon de dé mooy ñu libérer les détenus politiques xam nga dañ la waxoon fii ay détenus politiques la ñu ne déedéet ñii c'est des terroristes c'est des lii procureur ñi bi nga xam ni moo leen chargé woon moom moo leen génne c'est à eux qu'ils font demander bu dee ñoom toog nañ fii demandeur de xaar ah ah xaaral rek le procureur laa wax bu doon loi d'amnistie la ñu ne ah gis nga de ñii moom xam naa dañoo négocier ci suuf ñu daal ni waa APR ak bennoo ñoo génne waa Pastef prison déedéet c'est le procureur bi leen chargé woon lourdement souvent sans aucune base aucun fait moo jékki-jékki génnewaat leen donc il faut ñoom nga laaj leen à part le dégel si Ousmane Sonko s'est engagé avec makisal nañ ko révéler publiquement ñuy accuser ak di supputer def ay supputation bu ñu yam ci supputation ndax supputation moo ñu yóbbee article bi supputation bi ñu def contre des juges constitutionnels kuy wax tegal sur la table ku am preuve négociation wax ko s'il y a un échange marchandage nga ni Ousmane Sonko lu mu teg sur la table pour wax ak Macky pou pour la libération des gens cette libération elle est demandée exigée depuis toujours ñii waruñu woon a yendu kaso 24 heures c'est quand on ouvre le dossier on se rend compte de leur vacuité loolu mooy dëgg gi ils étaient des détenus politiques arrêtés pour des motifs politiques libérés pour des motifs politiques et la motivation politique première mooy un président en fin de mandat qui s'est en euh, engouffré dans une illégalité boo xam ne il veut s'en sortir mu xam ne un dégel politique mooy mu joxe ay gages et partout où il peut donner des gages il continuera à mais mais mais buy joxe ay gages lan lay xaar en contrepartie pour que yéen ngeen calmer calmer ñun ñun li ñuy continuer on continue notre campagne aujourd'hui la marche F24 ñun parti politique lañ bu doon nañoo négocier mu dindi di dissolution wu Pastef ñu teg ko sur la table ñu wax ñu ñun contrepartie bi ñi demoon dialogue dañoo utoon contrepartie. non que ku nekk da ngay dem ñu réhabilité la. no defal dànk rek. Mm. non man a xam nga man. bugguma ñu dugal ma ci débat boobu sax. yaa ko fi indiqué oui ma bi ngeen dem débat. en tout cas oui ma le résultat de tout dialogue xam nga Macky Macky li mu wax xam nga Macky li mu leen wax mooy gis nga ay ci njekk ak teraangaak dañ ñoo ñaan ñu may leen le nombre de députés patati patata kooku c'est un problème ñun li ñu leen wax mooy ku bëgg def accusation da ngay ñeme sénégalais yi nga ni duma def ay supputation ak ay accusation fortuite soo jiiñee Ousmane Sonko dafa négocier da ngay wax lan la négocier il faut aller au bout de choses mais du ñu toog ñun ñu ñuy defal ay supputation duñ ko nangu on l'a démonté demantir nañ Karim wàdd bi mu waxee depuis loolu déggaatu leen ko. merci mais keneen ku yëkkati accusation wax sur le cas. Euh, Wardini mais sur le cas Wardini ñoom li ma lay wax ils réussissent mais ils sont trop forts le cas Wardini c'est très simple. <laughs> le conseil constitutionnel la loi avait réglé son cas. dañu ni c'est une déclaration sur l'honneur le principe d'une déclaration sur l'honneur c'est que l'infraction est découverte après vérification jamais avant est-ce que comprendre nga. et c'est à l'occasion d'un contrôle kese nga mën découvrir une décla une fausse déclaration sur l'honneur léegi si le conseil découvre après la publication des listes que kii dafa doon def une fausse déclaration bu dee dafa dem élection ba résultat yi génn dañ koy metre zéro ci résultat yi mu am yëpp s'il était premier ñu dindi ko def deuxième bi premier on transfère juste les résultats de moom mu yéeg maanaam ah, conseil bi moo amoon tey jii xam nga kaa war di ni lu gënoon simple un candidat comme Amadou Ba comme que Macky Sall la le cas découvrir na il demande à Amadou Ba de saisir le conseil am nga droit ñun daf ñoo si yóbbu contentieux ni waruñu bokk ci élection yi bi ñu valider pourquoi deful loolu non dama lay wax que le PDS l'ait découvert ou quelqu'un d'autre léegi nag tey xam nga le conseil xam na ko Wardini a une grande chance moom de sortir par la grande porte et d'éviter des poursuites mooy mu désister. mu désister elle envoie un courrier le jour même si l'envoie à 10 heures à 14 heures le conseil statue e est retirée et lui fait acte de désistement loolu moo koy sauver si si elle m'entend je lui donne ça mu def ko autrement dina dépenser xaalisam dina dem élection te lii lay am. lu mën a am ci voix on va lui donner zéro loolu mënul nekk motif encore une fois pour ngeen jéem a reporter ay